لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti nga mën ko njëkk am bul fàtte cliquer ci abonné ak ci cloche bu ndaw bi pour vidéo wuñ munti nga mën ko njëkk am asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen ñi ñuy suivre seen seen sama xalaat ñu ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax di leen fàttali yéen a ngi seen euh, programme euh, huile essentielle de la semaine comme ni ngeen ko xamee chaque semaine dina am benn huile essentielle boo xam ne professeur dina ñëw waxtaane ko muy professeur Ousmane Ndiaye borom Bio su ko defee mu wax ñu euh, huile essentielle boobu lan mooy ay njariñam ak euh, nan lañ koy jëfandikoo ak dosage yi tey nag euh, professeur daf ñu indil huile essentielle bu gingembre gingembre comme ni nga xamee mooy jinjeer professeur ginnaaw bañ la nuyoo ziar la bëggoon nañ xam huile essentielle bi ñu indil ci semaine bi muy jinjeer maanaam lan mooy ay njariñam luñ ko mën a jëfandikoo ci wàllum wér gi yaram salaamaaleykum wa rahmatulah suñ Pape maa ngi lay nuyu di la ziare nuyu mbokku internet yëpp nga xamante ni ñu ngi

demeewul noonu. te mhm. dañuy am dañuy am manque appétit sexuel. Mhm. wala boog seen wàllu yaram sax du ñu sawar aussi. Mhm. dañuy xaw a taayal seen yaram day naka. donc yooyu yëpp baax na huile essentielle bi da koy da koy def. da koy saafara. lu mel ni stress aussi. boo amee huile bi ci njeer bi. baax na ci. lu ni rhumatisme. amee huile bi boole ko beneen huile végétale. di ko di ko maase wala di ko diwa baax na ci tànk yu métti.

lu mel ni estomac exemple. Mhm. moom it boo amee jinjeer bi baax na ci. mais nag xam nga ñu bëri dañuy wax ni jinjeer day mhm. parce que tamit fi ñu koy teg rek mooy wexaay bi. Mhm. ak it nga jël ko mu xaw lu lu lay yëngal. fekk loolu da koy da koy saafara. moom it baax na ci. baisse de libido maanaam boo xam ni. mooy li ñu waxoon ci <coughs> affaire sexe bi. nga xamante ni tamit tey. nekkeeg soxnaam ba xalaataat. Mhm. xel mi nekkul du nekk ci sëy amul ci tawarte la amul ci sawarte ci wàllu sëy yu am mhm. surtout. Mhm. donc moom it euh, bu ko amee baax na ci bu ni boo lekkee pour mu euh, digérer wu day day yàgg digérer bi maanaam dañoo am problème boobu maanaam fekkee tamit koo xam ne wàccu.

boutique yeeg yu demee noonu. wala mm-hmm. mm-hmm. baax na ci buy recensé mm-hmm. la aussi nga ci wàllu sëqat la. wala problème mu ak yooyu. moom it bu baax na ci. nga xamante ni tamit dañu amee problème mu chirurgie. muy yaaf. moom si visite moom wax dëgg yëpp wax dëgg yaaf. waaw amee bi. Mhm. moom it yow baax na ci. souvent ñu koy ñu koy def kii. maanaam ah di ko suuroo. Mhm. wala ñu di ko naan ci. Mhm. bu fekkee ci wàllu sëqat aussi. nit bu ci njeer aussi. baax na ci. donc yooyu daal la na léegi ni koy utiliser nag. waaw mooy mu toujours ni ñuy wax rek. benn utilisation la mooy que ni kenn du utiliser euh, pur noonu moom kese. Mm-hmm. mais wut ci loo ngay def. saa waxoon nañ ni da ngay am si suufar. Mm-hmm. di ko ci tooxal. wàcc ko. Mm-hmm. wala nga am seen lem. ak xalo mos ndox. mos a def ci ñaari du la ñett nga ko naan ko. Mhm. loolu yi demee noonu. donc noonu daal en général dañ koy dañ koy utiliser. Mhm. mais kenn di ko utiliser. directement kese kese noonu directement. mais mu fekkee massage la. muy rhumatisme mhm. nga beneen ko ci boole leen doo koy diwoo. waaw mais ko diwoo moom kese kese noonu. yooyu daal mooy njëriñ hmm. sunu borom dafa bind doomu aadama boole ko ak ay nattu ay jàngoro yu ko mën a gàllankoor waaye daan ñi boole ak ay gaayam yu mu joxi kéemtaan ba ñuy saafara jàngoro yu bari yu doomu aadama yi di weyaale bokk ci ñoom jàmbaar ju kenn dootul laaj aw turam muy sëriñ Ousmane Ndiaye tradipraticien Serigne Ousmane Ndiaye nag di borom xam-xam buy faj fajum cosaan waaye ay garabam mu di ko composé ak liy bàyyi koo ci gàncax sëriñ Ousmane Ndiaye nag sunu borom may ko moo xam muy bu nëbbu bi wala bu feeñ dina faj hémorroïde interne wala externe dina faj tension waaye it dina faj estomac Serigne Ousmane Ndiaye yemul foofu waaye dina faj rhumatisme dina faj góor gu néew kartan dina faj hépatique dina faj diabète ak sciatique ak jàngoro yu bari yu doomu aadama yi di weeyaale te li ci gën a neex nag mooy ay garabam lépp ci gàncax yi lay bàyyi ko moo tax boo ko dee jëfandikoo du bàyyi benn effet secondaire ci sa yaram ndoxum siti nag di jàngoro ju yaatu te sonal doomu aadama yi waaye bari ay màndarga ak ay signes yu mën a feeñe ci nit sonal góor ba indil ko néew kaxtan waaye it mën a sonal jigéen ba indil ko jafe-jafey am doom bu ngeen jokkoo ak sëriñ Ousmane Ndiaye fajkatu cosaan nag bii feeñ da koy faj ba mu wér waaye bi nëbbu it da koy jeex ba mu set ci yow bu ngeen yittewoo sëriñ Ousmane Ndiaye nag fépp fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi mën ngeen koo woo bis bu ngeen jëflantee ak sëriñ Ousmane Ndiaye nag ci ngeen di xam ni àdduna moo baaxoo coow rek waaye ku wéet ku ne xam nga kala man waaw loolu am na solo yaakaar naa professeur muy huile essentielle bu jinjeer voilà surtout li nga wax noonu am na tam loolu comme ni nga waxoon toqal si suukar wala def ci lem bi gënul waaw lem bi moom moom si boppam rek dafa bëri ay te def ko ci lem bi jaxase ko jël ko fa lay gën a efficace quoi voilà suuf moom nga wut ndox. Mhm. peut être mais moo a moo gën sa lem moom macha allah garab la. garab la. ak suukar moom bëriwul njëriñ. waaw waaw. feebar yu bëri suukar dafay yokk. waaw bi ci des mooy benn conseil rek benn conseil. Mhm. comme def li may def rek. man yi dama jël hmm. ah. semaine boo xam a jeex tey boo ne doo lekk dara la am suukar. la sa yaram. waaw loolu de wax nga koy neexul nag. <laughs> yaa ngi naan di kañ rek ataaya bi am suukar café bi doo am suukar. da nga koy taay noonu rek naan. taay noonu rek naan sa kawe gi noonu sens bi. nga def hmm. bu jeexee ma bàyyi. xaaral ma réfléchir mais <laughs> nee ma la si mën a topp ndox. mën ngeen bëri bu baax. te su ma ma naan café du ma a naan a a mais ah, yëpp normal. waaw suukar nga ci dul def. waaw du am suukar. suukar semaine bi du ma du am suukar. dina baax ci wér kenn day day noonu day baax ay sentir sax léegi bu jeexee nag mhm. yenn saa yi sax comme nii tey nii maa ngi sentir bopp bi di xaw a métti mhm. wala yooyu mhm. da ngay sentir ni xëy na yaa ngi manqué suukar yooyu mais bu subaa bu di naan yoo am suukar bi du am problème bari waatee quelques semaines wala un mois wala deux peut-être defaat noonu mu nekk genre cure la. waaw waaw genre nettoyé. ci baax bi man kon xam nañu ay yoon bu ko jëfee ay ay fekk waaw nee nañ mag mag moom mooy. lu baax yu neexee la doo ko toog de ça c'est vrai c'est vrai moo tax man ay ay boissons gazeuses yi moom naturel rek. waaw waaw waaw léegi même boisson naturel bi nga xamante ne dañ ma koy defaral. Mhm. muy ay bisaabu yoo xamante ne am suukar. Mhm. bu dee semaine bi semaine bi kay moom suukar du ma ko laal. Mhm. yàlla loolu loolu loolu loolu baax lu baax la. mais baax na quoi. c'est ay jus man yooyu yooyu de moo xam naa ne peut-être gan bi ñeen jënd ko. jënd ko waaw mais pour nii nii di ko jënd directement dem jënd pour naan. du ma ko def voilà du ma ko def. parce que jus yi naturel am nañ. am na fi waaw tey tey mën nañoo neex. non day neex. sax jus bu bu boo def suukar moom saf saf. waaw ak nebedaay. voilà non dafa neex nebedaay dañ koy def jus. Mhm. day neex. ah nem boobu moom mosaguma ko. ah nebedaay jus bu nebedaay. comme comme di tax. bu hmm. dëgg la waaw. Hmm. yow sax soxna si defal na ci boo xam ne buy la ko boole mm-hmm. xanaa xob tooy lañ koy defal tooy yi ngay waaw kii ko waaw mixé def ci ndox seen waaw loolu te garab la loolu en plus garab loolu ngay garab la ngay jël ko mixé xaw ma lu muy sax de ñeent dina war a pour ñam ko <laughs> mais ñu gis-gis boobu moo ko daqaar doo ko mën a xàmmee moo di tax moo safla moo di tax doo ko a xàmmee ñoo xamante ma amee jeex doon doo xamee boo naanee. waaw ah, moo tax moom gënoon ah, nañ dara. mais am na xam ne bëri noonu la ñuy def. ah loolu c' est une très bonne idée sax loolu. waaw noonu la ñuy def noonu ko naan bay dañ koy defal kër si bisaab. si ndax xam ko génne mais loolu c' est très intéressant sax waaw. Ah. saabu weex bi tamit noonu la neex. xob yu bëri sax boo xosee xob yu bëri mën nañ koy def noonu. mën nañ koy def noonu waaw. waaw tubaab foofu la ñu ragal rek mais du leneen xew rek xalaat. waaw ñun li ñu yor daal lañ war a valoriser. dañ valoriser wul rek moom mooy suñu problème waaw valoriser wul ci dara. mais yooyu yëpp day faj baax dëgg la waaw. Ah, yàlla baax na yàlla baax na kon comme leer na professeur. mu nekkoon euh, huile essentielle bu jinjeer. Mm-hmm. Ah, liñ ci wax am na solo kon nit ñi seetaan ñu bàyyi ko xel bu baax. Mm-hmm. ku ko mën di jëfandikoo nga ngay jëfandikoo surtout ñi nga xam dañu am ay problème ci seen dënn yi. dënn yi waaw surtout. voilà xam naa nag bu fekkee am na loo ci bëgg a teg ci vidéo bi euh, ñu tëjee ko vidéo bi nga xam moom ci semaine bi ba semaine prochaine incha allah rabbi waaw xanaa di leen jox di daje rek semaine prochaine di ñaanal euh, sunu styliste bi. xam mhm. ne mooy ñu sonal ci ci dimanche bi. Mhm. muy Assane Diagne. Mhm. Euh, nekki Pikine. di wax tamit ku ko bëgg euh, ci bëgg rek. mel ni wala yeneen ak yeneen ku ci bëgg rek moom taxaw naa pour jëf ci xew. donc numéro bi mooy 77. 995 91 69. waaw. ma ne mu ngi Pikine Assane Diagne. Assane Diagne participation ci émission bi am na solo. am na am na solo vraiment dëgg yàlla moom a moom frappé. waaw bu ko dikkee dama ne lan laa la jox mu doon jox dara. Mm-hmm. chaque dimanche mu mën a defee parce que tamit nit ñi ñu xam ne. Mm-hmm. émission yi par dimanche lañ koy def. waaw waaw waaw. waaw dañuy enregistré vidéo yëpp. yëpp dimanche di ko teg si semaine bi. waaw waaw waaw. ñu bëri ñu mel ne liggéey dimanche wala déedéet. commencé def enregistrement. enregistrement moo tax bu ñu woowee heure bi du ñu mën na jot. Hmm. loolu la ci bari tamit. dëgg la donc bu ko defee nag. dëgg la ku ci mën a commandé aussi nga commandé ko kon jàpp ci tamit. dina dina baax. dëgg la. waaw ah, loolu am na solo. ñaar muy jeune boo xam daal ñu ngi koy ñaan yéen yàlla barke liggéeyam. liggéeyam waaw ah, man jeune bu ma neex la man jeune buy. defar daal xaw ma lu tax damay man doon dama ko dama bëgg jeune boo xam ne sax xel bi dama koy. non dañoo war di innover sax baax defar dañoo war di defar sax. waaw dañoo war di defar. voilà innover. même jeune boo xam ne boo see nekk ci mbedd taxawaar rek. loolu ah, la ko bëgg li ñuy lekk ak li ñuy sol yëpp war nañ ko mën a defal suñu bopp. dàll ak yëpp. dëgg la loolu foog foog muy ñëw ndànk ndànk quoi. dëgg la nga xamante ni soxlaatu ñuy jënd il faut fier sunu sunu sunu sunu sunu bopp dëgg la waaw. Ah. te mën naa nekk. mën naa nekk lu yomb la. volonté rek la laaj. kese volonté la laaj. Ah. bu ñu amee ay yoo xam ni loolu dañ koo gëm. gëm waaw te fas yéene koo jëmmal nit ñi dañ leen ciy topp. bon oh, man kay dama koy joxe exemple toujours muy président Burkina Faso. Mhm. man kay maanaam mu teg moom 10 ans Burkina dem yoonam. am na solo fekkente ni jëlewuñ ko fa. Mhm. waaw. Ah, bu dee jëlewuñ ko fa eh, mi liggéey liggéey bu am solo. maanaam mbir Burkina. président Afrique yëpp maam ko di defee noonu. waaw li tax kenn doog fa jëlee mooy bu ñëpp di defandoo dañuy am doole. waaw dañuy am mais bu ko kenn kese. ñu yàqal ko wala ñu bloqué ko day yomb. bu ñu am na loolu ñoom ñëpp man ci benn defin. Mm-hmm. dañuy daal am doole. voilà loolu la dañuy am doole. pa pa xam nga foofu boo jëlee suufu Mali. Mm-hmm. suufu yi. waaw mën na dundal Afrique yi yëpp. dëgg la. te boole woon nañ ko ay jamono. ah te boole woon nañ ko ay jamono. boo boo boo ko jëlee nag. waxuma la Afrique mën nañu léegi de. sa nga Europe ñun ñoo leen war a yor ñoom wóorul ñoo yor. mais loolu jëm jëm la. <laughs> Ukraine kese moo yor Afrique ci ba léegi. waaw waaw Ukraine. ah Ukraine affaire ah, boobu daal léegi. te yow liggéey. Ukraine nekk guerre. Afrique dama fa di négocier pour Ukraine jox ñu bële. te ah. Ukraine mi ngi ci guerre. Oh, mi ngi ci guerre mi ngi ci guerre. ñun ñun ñu ngi si jàmm ñun africain yi. suñu président yi dajaloo ñu dem ñu ne pour Ukraine ngir yàlla yonent bi bele bi ñu doon jox bu mu at bu mu dakk na continuer di ñëw même booy guerre na bele bi di ñëw ah, ñun loolu lañ demoon si waaw suñu président dem waxi loolu liggéey loolu liggéey loolu gàcce ak dëkk ñun dem si turu président Afrique yi ñuy France mooy ñuy làkk français rek ah, ñooñu ma dëkk ñàkk jot mooy ñuy làkk français ah. ñoom boo leen xoolee ñoom ñu France yi nii ñoom presque ñoo gën a tardé ci Afrique voilà dem ci président boobu comme ñun France moo ñu yëlif lu tax France jaayuñu mele. vraiment. France kay comme ñooñu ñoo yëlif suñu dëkk yi. kon lépp fa la waroon jël. mais eh, ñoom xool ñun ba ñu yëlif ñu te ñoom lan la ñuy yëlifee. maanaam ressources humaines kese la jam jeex France ay nit ñu jàng kese jam jeex. amuñu leneen suuf si. zéro zéro ñun Sénégal ñoo ëpp ressource France. Sénégal ressource bi nekk biir suuf si. ñoo ko ëppale France fuuf. léegi France yilif ñu. loolu xam nga question dañ jiit la rek. jiit la rek ñoo jiit la jiit la. dina dañ baax voilà dina dañ dina dañ parce que affaire yi mën na continuer nii. mën na continuer nii. continuer nii rek. day li lañ ne luy luy ñor luy ñor nar a neex. su baxee dina xeeñ neex. neex waaw waaw affaire baa ngi xeeñ. mi ngi xeeñ nag maa ngi xeeñ nag. fan ngi xeeñ dina changé yaa ngi yow. incha allah ay jàngale am nañ ay intellectuel macha allah. yàlla na ko yàlla def sens si jàmm te kenn bañ cee lool. amiin amiin amiin waaw parce que changement yooyu nga xam tam ay nit yu bëri dañ ciy lool te bëgguñu ko waaw mën naa changer ci jàmm ci jàmm yàlla na changer ci jàmm amiin amiin waaw yomb na yomb na bu ñu amee volonté bi rek dinañ ko def incha allah ci barke yonante bi kon professeur ñu ngi lay remercier jërëjëf di la jox lante bu semaine prochaine jërëjëf ñi di leen jox dig dañu rek ci semaine prochaine ci yeneen vidéo asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum asalaam wa rahmatullah لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقرن في بيوتكم